Souleymane Diallo maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay nuyu di la ziar. voilà tey jii nga nekk njiitu ONG Otra-Africa euh, ñu lay laaj euh, Otra-Africa ONG bi lan moo ko tax a jóg ci lan lay yëngatu exactement. Ndeye Comba maa ngi lay sargal euh, ONG Otra-Africa comme tour bi ni mu tuddee bànqaas la boo xam ne Espagne la juddoo si si si dëkk bu ñuy wax Séville mu nekk ci ñi xam taarixu histoire taarixu arabe euh, xam nañu Andalousie lu mu joué si wàllu dem ak dikk si adduna bi donc autre africa ay doomu Afrique yu nekkoon Séville ñoo dajale euh, jamono ji euh, gaal bi di dem Espagne mu bëri trop ñu gis ni ñu fay yegg dañoo am ay problème pour mën a bokk si dëkk bi wala wut yenn kayit yi donc si la ñu ko xoolee ñu tuddee ko autre africa autre africa parce que dañu jàppoon ni que tubaab yi ñoom li gaali di ñëw yëpp dañu jàpp ni que dañu mbaboor yi foofu amuñu lu ñu lekk dañu nekk si ay guerre dañu nekk dañu xiif dañu feebar Afrique torox rek moo fa am Afrique dara amu fa Afrique torox torox tànneel donc si la ñu toog ñun tam ñu ne non ñii ñun dañ leen war a woon ni que li ñu yaakaar si Afrique dañu juum Afrique continent la boo xam ne wax dëgg yàlla am na jàmm am na lekk coono bi ñuy wax ñoom bi ñuy gis ni ko coono boobu coono boobu demeewul loolu hmm. Afrique Afrique naataange am na. Afrique alal am na. Afrique jàmm am na. Afrique ñu yeewu ñu am xam-xam. ñu bokk ci adduna bi. Afrique jàmm ak salaam Afrique bu am na. donc loolu moo waraloon ñun tam ñu tuddee suñu bopp beneen Afrique autre Africa mooy beneen Afrique du Afrique wu yi gis du Afrique feebar yi ñuy gis du Afrique bu bon bu salte bu ñaaw bi ñuy gis Afrique dafa rafet Afrique dafa baax Afrique dafa dal Afrique am na ay nit yu am barke yu fi nekk ñun loolu lañu moo loolu lañu tuddee suñu bopp beneen Afrique bi nga xam ne ñoom du Afrique boobu la ñu euh, ni ngi nii euh, décembre bi ci la ñuy màggal bés bu ñu jagleel migrants yi euh, pour yow ban importance la bés bi am Souleymane Diallo. waaw bés bi ñuy màggal migrants yi dafa am solo trop taarixu ñuy lay fàttali Nations Unies ñoom ñoo ko porté woon ci pacte mondial de la migration et normalement sax date bi ñu koy célébrer le 4 décembre 2000 la woon ah journée internationale de la migration ci la ko waa Nations Unies mais euh, bon li ci ëpp la 18 lañ koy lañ koy célébrer mais célébration bi yëpp mooy ni que bés boobu dinañu permettre ñu wax waxu migration et ñu fàttali gis nga su ñuy wax waxu migration migration dem ak dikk la donc euh, lu war la. ndëgam picc yi dañu dem di ñëw mala yi di dem di ñëw nit ñi tamit dañu war a dem di ñëw loolu lañu war a mën a taxaw ba nga xam ne ni mën nañ ko célébrer ba nga xam ne euh, journée de la migration si noonu lañ dëkk boo mun ci dem ñu euh, euh, tey jii kon boo doon ñëwaat ak ñun Souleymane Diallo ci jafe-jafe yi nga xam ne migrants yi ñu ngi koy faral di jànkonteel d'une manière général ci àdduna bi. waaw migrants en général Euh, ku génn bitim réew euh, li ci ëpp jafe-jafe bi ngay njëkk am mooy jafe jafewu wu dëkkuwaay fi ngay dal fi ngay nekk fi ngay toog nga dal fa sa xel nekk fa nga nekk fa si jàmm nga toog nekk si jàmm ak salaam loolu mooy li nga xam ne loolu mooy jafe-jafe bu njëkk mooy fi ngay tegee sa bopp nekk si jàmm bu loolu weesoo après mu topp si wàllu fi nga nekk nag boo fa nekkee nekk fa si jàmm da ngay bëgg di di di dem di am li li li la fa war yëpp ak ak yelleef yi la fa war yëpp te ak ak yelleef yooyu kayit mooy tax nga jox nga nga am ko maanaam wàllum administration boo a wàllum administration bi ba nga am loolu nag après su boobaa nga bokk si wàllum koom-koom wàllum dëkkuwaay wàllum sociale culture intégré dëkk bi donc jafe-jafe yooyu mooy jafe-jafe yi nga xam ne migration migrants yi en général ko am. maanaam fi ñuy dal. Mhm. bu ñu dalee ba am kayit yi tax ñuy war a mën a dem ak dikk bokk ci kii bi léegi nag bu ci bi ànd ak waa dëkk bi ci seen aada ci seen yelleef ak ci seen pas mhm. bu dee ci côté sénégalais yi suñu doomi sénégalais yi nga xam ne souvent ñi ngi bitim réew ñoom lan mooy seeni jafe-jafe Souleymane. waaw doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew comme ni mu koy waxee li ci ëpp nag ay problème u kayit la ñu joytu problème u kayit yi mooy ni que bu ñu demee bitim réew euh, Sénégal ak ñi réew yooyu ñuy sëkkal dañu war a xool nan la ñu war a fexee ba nga xam ne ñoom dañu am kayit bu ñu amee kayit ba pare après ñu nekk seen problème intégration problème u intégration bi xëy ak gont bi dëkk yi ñuy dem noonu xëy ak gont bi ba pare intégré loolu mais premier facteur bi nga xam ne sénégalais bu nekkee bitim réew lan lay njëkk a wut mooy fi muy dal ak fi muy nekk su amee fi muy dal ak fi muy nekk après nag mu ñëw wàllum kayit yi loolu la Sénégalais di gën a jooytu bitim réew Euh, ñu laaj la si euh, émigration irrégulière euh, gànnaaw sensibilisation yi nga xam ni ñu ngi koy def saa su ne terewul jeunes yi ba léegi ñi ngi jël gaali yi jubali Europe wala Espagne pour yow naka la ñu mën a xeexee li nga xamante ni mooy émigration irrégulière rawatina ñi nga xam ni dañuy jaaree ci gaal yi pour dugg Europe. waaw xam nga immigration irrégulière man su koy dégg daf may xaw a jaaxal parce que immigration warul nekk irrégulière. immigration dañ ko war a accompagner donc euh, jafe-jafe yi nga xam ne man li may gis mooy ni que koppar yu bëri yi ñuy dugal ci ay programme ci ay projet pour tënk xale yi loolu rek fajul migration migration c'est socio c'est sociologique ci xel la ci xalaat la ci bëgg-bëgg la euh, amul ku bëggul dem seeti feneen comme ni ko olof yaay di waxee ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee ku dul tukki du xam fu dëkk neexee donc nit yi dañoo bëgg di tukki di jaafonteel ak ñeneen ñi di jaay ak jënd ñeneen yi di dem di dikk di xool leneen li baax feral si di ko indi di dem ji jàng yi di ko indi di dem di gëstu di indi di dem di natt seen bopp ak ñeneen ñi di ko indi donc loolu dañ ko war a accompagner du tënk leen wala wut ay projet teg ko fi di nee non xale yi toog leen toog leen toogaay rek téyewul xale yi malgré nag am na ay projet yu yu baax yi fi def ba boo xoolee projet wu 3FPT bi wax dëgg yàlla mu ngi réussir parce que mu ngi timbali xale yi ñuy am ay formation ñu toog ah, ñu dem di wuti di di gëstuwaat di jàngaat projet délégation à l'entrepreneuriat rapide boobu tamit wax dëgg yàlla mu ngi jéem a sàmm xale yi mu ngi jéem a ubbi mais projet yooyu rek doyul dafa laajte ñu jàngalaat sunu sunu sunu ndaw yi xamal leen ni que euh, du tukki mooy tekki du tukki rek mooy tekki ñoom dañu war a mën a toog si réew mi ca ñu bokk si ñuy tabax réew mi waaye tamit tënk leen rek tamit tënk leen rek tamit fajul mbir gi donc ñaari problème la yoo xam ne dañu gëmloo sunu xale yi di ko ñoom ñooy tabax réew mi ñoom ñooy defar réew mi te ñoom la réew mi mën a wéeru pour mën a jëm si kanam loolu buñ bu leeree ba pare bu ñu décomplexé li nga xam ne mooy tukki après nag ñu ñëw si accompagner ñi nga xam ne ñoo war a tukki nit warul jug nii rek ne damay dem tukki di dem aventure di jël ay gaal wala di jox ci désert bi pour mën a dem si si pour mën a wàll yaan non non loolu warul am kuy dem pour tukki dañu war a xool nan lañ ko war a accompagner ñu xam fi muy bu jëmee foofu tamit ñu toogal foofu Sénégal mën ko accompagner ba nga xam ne comme ni la koy waxee si njëlbeen dina am nu mu dalee dina am kayit dina mën a euh, nekk si jàmm foofu. Euh, tey ji yow pour yow est-ce que politique bi nga xam ne état bi teg na ko baax na pour xeex euh, émigration irrégulière yooyu maanaam ndaw yi jël gaali yi. problème bi du problème mu baax na wala baaxul comme ni mu la ko waxee sànq waruñu tënk ndaw yi politique am na fi ñu ngi jéem a xool nan la ñu xale yi mais lan mooy li dëgg dëgg-dëgg mooy ko waru waruñu tënk xale yi dañu war a xool nan la ñu accompagner xale yi nan la xale yi mën a génne génn si jàmm. mais nasaraan si noonu la ñu def seen doom yi dañu ñëw suñu réew yi te donc ñun tam suñu doom yi war nañu mën a dem seen réew yi ñoom ni seen doom yi di ñëwee ñu xam ne seen doom yi ñëw na ñun tam suñu doom yi ni ñuy demee ñu xam ne suñu doom yi ñu ngi dem ñu bokk loolu yëpp mu nekk benn mais tënk nee leen bu ñu dem loolu warul dañu war a ubbeeku xool nan lañ leen di accompagner si ñoo bëggee dem Euh, est-ce que yow tamit d'accord nga ci li ñuy wax réciprocité des visas comme que sénégalais yu bari am visa pour dugg Europe wala Amérique da leen di jafe ñenn ñu ne euh, képp koo xam ni su sénégalais bi di dem réewum da nga koy laaj visa condition yu métti yow tamit booy dugg ci réew mi dañ la war a tegal condition yu métti tegal la visa est-ce que d'accord nga ci loolu. waaw loolu buñ koy wax waxu réciprocité kii di wax waxu réciprocité ak ban réew lay wax ak lan lay nekk di wax xam nga réciprocité mooy maanaam boo ma defee ma def la wala li nga def nii nii laa koy defee bu nekkee wàllum réciprocité la am na ay dëkk yu bëri yoo xam ne sénégalais ak passeport rek mën nga fa dugg léegi nag dafa am ay réew yoo xam ne Sénégal munu fi sénégalais munu fa dugg parce que réew yooyu dafa am lu leen tënk maanaam dañ nekk ci benn communauté damay joxe exemple États-Unis wala euh, Union européenne wala Schengen Schengen ay dëkk Union européenne ñoo daje seen bopp te Sénégal yi ñu ëpp bopp la ñu dem mais Sénégal kese mënul def loolu parce que Sénégal bu tëjee boppam ne kuy ñëw nii ngay duggee te yeneen dëkk yu wër Sénégal ñooñu mën nañu duggee foofu Sénégal mooy ñàkk loolu buñ koy def parce que boo xoolee su ñuy wax waxu France France te ngeen moo ko tënk communauté moo ko tënk donc Sénégal aussi bu mënee jàkkaarloog France ci loolu dafa war a ñun dañu war a mën a wut benn communauté maanaam communauté bii ak communauté bii jàkkaarloo sa France nekk fële Sénégal nekk fële li communauté France nangul France Sénégal tamit communauté am nangul ko ko bu ko defee réciprocité foofu lay neexee mais Sénégal bu mënul def réciprocité ci France alors que France communauté la bokk te Sénégal bokkul ci communauté communauté sénégalaise mooy ñoom nañu fexe Afrique ñu am communauté buy mën a def réciprocité ak Schengen foofu la loolu di mën a neexee. Euh, dernière question ñu laaj la si euh, ambassade yeeg consulat yi nekk bitim réew est-ce que ñoom ñu ngi def seen réew parce que ñu ngi def seen liggéey plutôt parce que dañuy gis ni sénégalais yi nekk si diaspora bi souvent euh, dañuy jàmbat naan ambassade yi amuñ njëriñ consulat yi amuñ njëriñ du ñu taxaw ci jafe-jafe sénégalais de la diaspora yi. waaw ambassade bu nekk bitim réew mënul ñàkk njëriñ. kooku na leer tamit xam nga wax day day kii ambassade bu nekk bitim réew rek am na lu ko fa bàyyi am na lu muy defee léegi nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne sénégalais yi nekk bitim réew dañ koy kii wax naa ko sànq ku dem tukki rek léeg-léeg problème yooyu ngay am problème mu dëkkuwaay problème mu këyit problème yenn kii donc da ngay yaakaar ni que te ambassade da la war a taxawu parce que loolu moo ko fa yóbbu mais loolu lu koy saafaral maa ngi koy wax mooy ministère des affaires étrangères ak ministère de l'intérieur dañu war a lëkkaloo xool nan la ñu fexee doomu Sénégal foo munti nekk si adduna bi nga nekk Arabie Saoudite nga nekk Hong Kong nga nekk Paris nga nekk feneen boo ñëwee di wuti pa boo ñëwee di wuti kayit dans les quarante huit heures voire soixante douze heures bu nekkee kayit yi nga yor yu baax la ñu wala la mën a jox say kayit parce que li si ëpp passeport la ñu wut te passeport war ñu mun a créer benn valise boo xam ne production bi mënul passer les soixante douze heures pour les quarante huit heures donc jafe-jafe boobu ay piste de la yoo xam ne. waa affaires étrangères ak ministère de l'intérieur particulièrement direction des passeports war nañu mën a xool nan lañ koy defee moo gën tout le temps ay mission di dem ay mission di dem même ci biir ambassades yi ma ambassades yi si boppam war nañu mën a am des valises de production de production yoo xam ne ñoom seen bopp ñooy dugg à partir de l' ambassade dugg si yeneen région yi yeneen départements yi pour mun ko kii moo gën tout temps mission di jóge Sénégal di dem si kii yooyu mais ambassade Sénégal su mu nekk war nañu mën a am ñaar ba ñetti mission yoo xam ne ñoom ñooy ratisser adduna bi pour pro sénégalais su mu am yenn problème yooyu ba ñuy xaabaabal ambassade ak consulat yi. Souleymane Diallo Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. Ndeye Comba maa ngi lay gërëm di la sant. di remercier invitation bi. di souhaiter un bon week say say say jërëjëf Souleymane Diallo ci disponibilité bi may fàttali ni yow yaay président bu ONG Otra-Africa. jërëjëf